ne mooy kanilaay bëre gu set wécc macha allah soo bëggee gis bëre daal ñëwal si dex gi si dex gi rek si fooñ yi geeg si dex gi dexi yi bëre yu set macha allah moo fa dee nekk bëre yoo xam ne kenn du ko laam-laamee daan nga ma wàcce ma rek ngay dégg yu set wécc nag jamono yi nag ñu fii nga xam ne mooy kanilaay nga xam ne king nga of the promoters moo tëgg làmb ji fii si kanilaay o Birkama Banjul Birkama Josuwang Casamance waa dafa mel ne diggante ki nga xam ne mooy mburu joola bi ak mburu séeréer bi mburu bi àggul de ba tey mburu bi mburu bi àggul mburu yaa ngee dem ba tey ndam amagul si benn waa kii dafa mel ni kuy yëkkati loxoom de kenn ki ñoom nga yëkkati loxoom xëy dafa am lu koy métti ba ndam demul ndam dikkul ñoom ñaar seen mburu bi de waaye defe naa mbër yi moom duñ dee sonn ndax ñii dégg naa seen digga guddi ba fajar dañuy bëri guddi ba fajar dañ koy bëri wala pour ñu sonn du yomb macha allah dafa mel ni jamono yi nag mbëri mbëri ñoo nekk di bëri si diggi géew gi waa kooku romba noonu de niróo naa Gambia ñaari combat yëpp macha allah ñoom ñépp ay joolaa lañu wala ñoom ñëpp ay mbëri joolaa lañu nee naa leen seen géem yaa koy wone macha allah wàcce ma dafa mel ni mbëri joolaa bi daan na kii nga xam ne mooy moromam bi nga xam ne moom la doon bëril waaye ba tey dafa mel ni am na beneen bu nekk si diggi géew bi waaye ba tey bu séeréer bi ak bu joolaa bi àggagul ne bu futa bu nga ne la ci gannaaw ba tey ndam demul ndam dikul ñoom it seen bëri bi yàgg na lool ref boobu ngeen gis mu taxaw kooku mooy kawsu nag àtte nañ leen macha allah dëgg la bëre bi dafa yàgg waaye tey ngaa xaar mu àgg xale yi bëgguñ ku leen àtte ne rek galgal gi àggale liggéeyam diggante ñaari mbër waa galgal gi génn nag li tamit ba tey ñu si kawam ba tey ndam demul ndam dikkul yi nag am na mbër bu siga xaar ku waaye dafa mel ni kenn génnagul de waaye ba tey combat bi nga xam ne ñaari mbëri joolaay ñu si kawam ba tey ñoom ñaar nag ku nekk am nga sa bi morom dafa bëgg a mbot daaneel ko waaye dafa mel ni na kenn ki nanguwul si loolu daf fi àtt na leen ñu bañ jamono yi macha allah kon bëre bi war naa mën a continuer ndax xam naa ne ñaari mbëri kenn du wax moromam ne dama soxna leen dem noppale ko <laughs> ngeen ku leen àtte yéen ñaar. mbokk yi kookoy Gambia. jàppante comme nu ma leen ko waxee woon si njëlbeen kii nga xam ne def gembalu bulu li am lu weex li moom la ñuy ooyee gi guy gi nag jamono yi moo jàkkaarloo ak kii nga xam ne mooy ba tey nag ndam demul seen diggante ñoom ñaar ndam amul mun nañoo wax ne bii mooy seen ñaari yoon ñu ngi songante seen poos jàppante bi nag métti woon na lool te yàgg waaye mënuñoo wax ne daan am na fa ndax daan amu fa ñaari seen ñaareel a jàppante nag moo nekk ni jamono yi seen ñaareel a jàppante moo nekk ni lewaatoo bi bëri na de jamono na ñu ngi jàppante seeni loxo guy gaa ngee de bëri séeréer baa ngee complain de lu muy wax waaye dafa mel ni am na beneen buy daw am na ñeneen ñu nekk di wër géew gi toll si benn macha allah kenn ki am na tànki moromam téye ko ba mu dëgër nag na tànk gi dina rëcca wala du rëcca léegi tey mu leer Eh, daf ko bëgg yëkkati ba ci kaw de mbëri joolaa bi ak mbëri séeréer gi waa dafa mel ni aate neen leen nag am na beneen combat boo xam ne macha allah jamono yi jeex na xool leen wàcce ma moo fa nekk boobu wàcce maa fa nekk waa ba tey it combat baa ngoog diggante kii nga xam ne mooy euh, guy gi guy gi nag bay mbori séeréer gi jamono yi nag ñoom naa nag dëgg dëgg seen bëre bi yàgg na lool def leen fi foos jàppante bi jamono yi nag moo nekk ñaareeli jàppante bi waaye ba tey ndam demul nag bëre bi nag waroon naa mun a jeex lu yàgg waaye dafa mel ni kii nga xam ne mooy guy gi jàpp moroomam bi tànkaam bi mbëru joolaa bi la ba tey ak mbëru séeréer gi nan la mbëru bi war a demee léegi tey mu leer kii nga xam ne mooy guy gi mu ngi jàpp tànk kii nga xam ne mooy mbëru joolaa bi bañ mu rëcc nag diggante mbëru joolaa bi ak mbëru séeréer gi léegi tey mu leer léegi tey mu leer ey waay xool leen bi bëre tànk bii de bu la rëccee waxuma ne di nga ko jàppaati waaye du gaaw. ñaar ñi seen bëre nan lay demee waa xool leen lii dëgg dëgg mbëri joolaa bi mbër la ndax ne woon dina rëcc si doo ko gëm tamit batay ba ndam demul ndam dikul macha allah ñaar ñooñu ngeen di gis nañu nag ñoom ñaar yëpp ay séeréer leen damay tooñ joolaay rek waaye ñaari mbër yooyu ngeen di gis ñu doon bëre yëpp ñoom ñaar yëpp ay séeréer leen kenn kaa ngi baara kenn kaa ngi fii si kombo ki di fekkee ni na macha allah mi ngi jógee ba Dandemaayo